lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ma jëmmalul boppam soxna jaara soxna jaara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 salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw sëñ Koso li nga laaj euh, lu am solo la ren ji effectivement ñi ngi waajal màggalu Poroxaan ci forum culturel ëttu Soxna Jaara bi nga xam ne euh, mën naa ne ren mooy juróom benneel wala juróom ñaareelu édition ñu koy def ñu koy taxawal muy forum boo xam ne euh, Serigne Isaaxa Basiru mi administrateur général fondation Maam Jaara Bousso te Cheikh Mouhamadul Mountakha nekk njiitul fondation Maam Diarra Bousso boobu moo gis ne euh, màggalu Poroxaan occasion la ngir daayirey Maam Diarra yi ngir soppey Maam Diarra yi ngir taalibe yëpp ak jullit ñëpp ñëw Poroxaan ngir delloo njukkal soxna si ngir ñaanal ko ngir ñaan euh, tawasul ci moom ñaan suñu borom dotti ay xéewalam ci réew mi dotti ko ci jullit ñi muy occasion boo xam ne itam sëriñ Isaaxa dafa gis ne nit ñi war nañ cee profité ngir li ñuy liggéeyal soxna jaara jaare ko ci fondation maam jaara Bousso te liggéey bi ëpp solo ci li fondation bi def mooy daara maam jaara ji ci poroxaan muy daara joo xam ne juróomi téeméeri xale yu jigéen ñu tuddee maam jaara ñoo fay jànge ñu jëlal leen lépp en charge fondation bi lépp seeni wayjur dara warul leen ci njàng moom ñu leen di jàngal alxuraan di def ci ñoom jikkoy maam jaara fondation bi jël leen en charge ànd ko nag fondation bi ak daayirey maam jaara yi composé fondation bi ak soppee maam jaara yi kon nag màggal gi occasion la ngir ñoo ñuy liggéeyal maam jaara ci daara jooju mën a gis li ñuy liggéey lu mu doon ngir ñu gis ko ndax ginnaaw daara ji dafa enclavé nekk ci euh, buntu dëkk bi nañ taxawal loo xam ne ci pénc mi fi mbooloo miy daje di ziar si xabru maam jaara Bousso ñu def fi loo xam ne dana jëmmal daara ji feeñal fi liggéeyub daara ji ngir daayira yeeg mbooloo mi ku ñëw xam li ñuy liggéey fan la dugg ak nan la demee euh, waaye nag ñu defale ci ay activités culturelles yu am solo yoo xam ne à travers ay exposition ay projection ay film euh, tarim alxuraan ay récital ay conférence yoo xam ne su forme de plateau lay doon ay borom xam-xam séq ko di waxtaane yu am solo yoo xam ne day jëm ci xamle kan mooy Maam Jaara Buso xamle ay jikkoom te suñu dikkee ci détail yu programme bi da ngeen ko da ko gis waaye muy programme yoo xam ne itam dañ ci xamle poroxaan ci boppam ni mu évolué ba suñ jamono ji màggal gi ci boppam lu ko waral euh, daaray Maam jaare ji euh, réalisation yi fondation bi yëpp dañ ko fiy leeral su ko defee loolu kon euh, moom la sëñ Isaaxa Basiru jublu woon ci taxawal gi taxawal forum bi juróom benn at a ngi nii ñu di ko def ba ren jii euh, ñu di ko waaj ubbi ngir euh, nañ ko daan defee ñu defe ko ni muy ubbil bunt yi bokki jullit yi bokki taalibe yi ngir ñu mën a xam li ñuy liggéeyal maam jaara nu mu demee maam jaara ci boppam ku ñëw ci màggal gi war ngaa xam kan mooy maam jaara ngir gën ko mën a roy ngir gën ko mën a liggéeyal. parrainage bi bokk na ci li nga xam ne mooy euh, li gën a taxaw fi mu ne nii ñu di ci gën a soññee sëñ bi di ci gën a soññee ndax su ngeen ko euh, fàttalikoo daara ji bi ko Serigne Moustapha Bachirou taxawaleek léegi. mën naa ne sax fondation bi ci boppam bi ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir taxawaleeg léegi ci 1999 euh, fondation bi jot liñ naan reconnaissance su état bi président de la république jox fondation gëddëy fondation d'utilité publique nga xam ne li muy liggéey njariñul askan wi la njariñul askanu Sénégal wépp euh, kon fondation bi ñu ko taxawaleeg léegi sëñ Moussa Bachirou mi ngi ko tëraloon ci financement wu membre yi daayira yi mam Jaara yi ci Sénégal ak ci àdduna bi nga xam ne ci biir Sénégal euh, membre daayira bu nekk ñeenti téeméer lañ lay laaj ci at mi muy kartu soppee Maam Jaara yooyu ñuy ñuy weccee ko ku nekk bitim réew it su dee ci Europe vingt euros lañ lay lañ lay laaj su dee ci États-Unis euh, su dee ci euh, euh, Europe quinze euros la ñuy laaj su dee ci États-Unis vingt dollars daanaka à peu près loolu ci àdduna bi ndax yeneen réew it Afrique du Sud ak Brésil ak yooyu yëpp dañuy dañuy dugal seen loxo ci liggéey bi kon muy financement boo xam ne financement populaire la boo xam ne mbooloo mi ñooy ànd dajale seen i ñeenti téeméer ci biir réew mi ak noonu ma ko waxee bitim réew loolu ñu ciy dajale moom la ñuy dundale maam jaare yi yore leen nga xam ne seeni way wayjur dara waru leen te loolu dana jege 15 millions ci weer wi weer wu jot li ñuy dépensé ci maam jaare yi seen dund seen euh, lekk fi ñuy tëdd li ñuy fay jàngalekat li ñuy fay personnel bi ndax mën naa ne daara ji mooy employeur bi gën a mag ci département Nioro waaw ci ñi nga xam ne euh, ay barabu liggéeyukaay la daara ji mooy employeur bi ci gën a mag euh, employeur privé kon di fi di ko fay ci ay nit ñoo xam ne dañuy létt dañuy nettoyer dañuy fóot dañuy togg ci population yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi euh, daare ji di ko def lool di ko def ci ñooñu loolu lépp soo ko boolee mat na quinze millions ci weer wi loolu nag mooy financement populaire boobu ma wax moo ko moo ko assuré waaye loolu nag euh, mën naa ne euh, lu am solo la loo xam ne lu fi taxaw loola ko taxawal moo ko moo ko moo ko fi taxawal ba nëgë ni ba résultat yi ñu am ñu am ko ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom euh, mën naa ne 245 maam jaara mokkale nañ fi alxuraanul karim mokkal wu rafet euh, te ñooñu ñu ci bari ci ñoom ñi ngi waat ci réew mi di jàngalewaat alxuraan mën naa ne lu mat ñaari junni nit ci Sénégal fii mu ne ñi ngi jànge ci loxo yi ay maam jaara yoo xam ne fii lañ leen tàggate ñu doon aw jiw ba ñu ngi jàngalewaat kon nag loolu njariñ la luy law ci biir société bi di law ci biir réew mi kon loolu li ko taxawal euh, tax mu am réussite boobu am mooy euh, financement boobu waaye nag dañoo gis ne réussite boobu dafa xëcc demande bu bees maanaam mbokki taalibe yi mbokki jullit ñu baree bari am njaboot gu tudd maam jaar dañoo am yéena léegi indi ko ci daara ji loolu nag muy demande bu bari bari baree bari boo xam ne moo ëpp offre bi maanaam place yi ñu am ngir dugal ci ay maam jaare ngir ñu jël leen ci daare ji place yooyu dafa néew ndax sëñ bi dafa bëgg yor bi mucc ayib ba bëgguñoo ubbi rek kum neex nga ñëw ndax loolu suñ ko defee xëy na dana ëppi loxo moo tax euh, léegi nag sëriñ Isaaxa ne nañ xalaataat beneen mode financement bu bees boo xam ne day yokk ci li fi nekkoon nga xam ne li fi nekkoon day li fi nekkoon dara jógu ci dañ koy dëgëral waaye nag ñu indi mode de financement bu bees boo xam ne kum mën a doon war nga cee mën a dugal sa loxo loolu mooy parrainage muy ndey daara wala bàyyi daara nga xam ne dañoo xayma ne am maam jaara li koy dundal ci bis bi téeméer dërëm la wala un euro wala un dollar loolu moo tax ñu ubbi buntu parrainage euh, muy mille francs ci weer bi mooy téeméer soo ko seetee par bis 15000 francs la ci weer bi at bi di 180000 francs su ko defee loolu mën nañ ne mën naa yor am maam jaara 180000 francs ci at mi kon nag euh, loolu moom lañ ubbil buntub ñi man ñëpp ku ci ku ku ku ku ci bëgg mën ngaa yor am maam jaara ci at mi wala ñaar wala ñett walla kem nu sa kàttan toll am na ay entreprise yu ko def entreprise yoo xam ne dañuy jëlandoo lu mat juróomi maam jaar di leen fayal am na ay nit ñoo xam ne benn maam jaar lañ jël wala plusieurs maam jaar am na ay daayira yu koy def am na ay famille sax yoo xam ne dañ naan ñun suñ famille nañuy dajaleendoo xale yi sax seen weccet yi ñuy am guteeg yooyu yëpp ñu ciy ruusal dara loo xam ne su matee mille francs ci kii ñu ñu pare ne ko ñu def ko ndey daara wala euh, euh, wala bàyyi daara am jaara ne ko ngir euh, euh, mu mën a mu mën a mu mën a dëgëral liggéey bi te loolu liñ ci jublu itam mooy ñu yokk capacité d'accueil yu daara ji ndax su fekkente ne am nañ yeneen moyens yuy ñëw ci parrainage bi dana tax daara ji gën a féex ba Cheikh Mamadou Mountakha mi jiite liggéey bi mën a tabaxaat ay dortoir mën a tabaxaat euh, fu ñuy jàng ay classes mën a yokk personnel bi ñuy jël ñuy jàngale kon parenage bi loolu lay jariñ maanaam dañoo am yéene yi ndànk-ndànk ci at yii di ñëw parenage bi yokk capacité financière u daara ji ba tax euh, quinze millions yi ñuy dépensé par weer ñu mën a wéy di ko def waaye teewul nag ñu am ay moyens additionnels yoo xam ne danañ ci mën a tabax tabax yu bees yoo xam ne danañ mën a yokk ñi nga xam ne ñooy dugg si ci daare ji te ni ma ko waxee nit ñu baree baree bari dañ ko bëgg léegi ndax résultat yi daara ji def parrainage bi waa États-Unis ñu ci ràññeeku lañu Europe ñu ngi ci ràññeeku bu baax Espagne France Italie ñu bare bari ci réew yooyu ñu ngi ci ràññeeku bu baax Sénégal gii euh, léegi de plus en nit ñaa ngi koy gën a xam ndax forum bi loolu lañ ci jublu itam ngir gën a xamle liggéey boobu ngir nit ñi gën a gën a dugal seen loxo ci liggéey bi euh, te anecdote bi anecdote bi ma ciy joxe am na mbokk moo xam ne moom taalibi murit taalibi xaadar la euh, sëñ Abdou Aziz Aydara moo doonoon sëriñam moom daaw dafa jël 500000 dugal ko ci parrainage bi biñ ko laajee lu tax mu ne ñun suñ sëriñ daf ñoo waxoon ne fu ngeen gisee lu baax dugal leen ci seen loxo te gis naa ne liggéeyub daara ji dara gënu koo nekk liggéeyub yàlla liggéey bu baax. moom dem na ba wax sax ne euh, su alaaji maam alaaji Malick euh, doon dund tey euh, alaaji Abdoulaye Niass nit diina yu baax yooyu suñu nekkoon ci réew mi tey danañ jël seen alal dugal ko ci daara ji ndax xam nañ liggéey bu baax la kon nag philosophie boobu. moo moo moo moo laytaay liggéeyu parrainage bi nga xam ne jullit bu ne mën na cee dugal loxoom rawatina nag mbokki taalibe yi kon euh, ni ma ko waxee waa réew mi ràññeeku nañ ci waa bitim réew Afrique it tàmbali nañ koo xam fu mel ni Côte d'Ivoire Serigne Isaaxa Bachirou chaque année dana fa dem léegi chaque année euh, Burkina dana fay dem Mali te foofu yëpp su fa demee day def promotion parrainage bi ngir nit ñi gën koo xam te ñoom it ñu ngi ciy gën a dugal seen loxo Afrique du Sud ñu ngi ciy dugal seen loxo ñoom it kon daal euh, réew yu baree bari ñi ngi koy gën a xam ndànk-ndànk dëgg la ñu baree bari xamaguñ ko waaye jàpp nañ ne luñ ko gën a xam te médias yi ak presse bi am nañ ci role bu am solo buñ ciy joué ci gën a koo vulgariser gën koo xamle ndax lu ko nit ñi gën a xam rek gën cee dugal seen loxo te liggéey bi kon gën a gën a yaatu euh, daara ji gën a mën a ubbi ay buntam ngir ñi ko soxla mën fee dugal seeni doom te loolu yaakaar naa ñëpp a ci am njariñ ndax am maam jaara ku ko yar def ci moom alxuraan def ci moom jikkoy soxna jaara su delloo fa mu dëkkoon euh, fa mu dëkk njariñ lañ def ci moom euh, yiw wiñ def ci moom dana lawaat ci askan wi te loolu yaakaar naa ñëpp ci am intérêt